Moussa Mboum nekk ba fële ca diwaanu États-Unis muy koo xam ne ni jàmbaar la euh, wax dëgg yàlla jàpp na bu baax a baax a baax a baax lii ci euh, site bi muy euh, Fall 94 Walf Sénégal bi di nuyu tamit Assane Mbaye ma la nekk ci Maroc moom it nekk koo xam ne wax dëgg yàlla actionnaire la ci Fall 94 Walf Sénégal ñooñu ñëpp rek ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax gis nañ ànd gi gis nañ conseiller gis nañ lépp macha allah ñu ngi leen ci jaajëfal bu baax baax a baax li ñu waxoon rek seen bi moom seenu ñëpp la voilà ñuy dellu si ci réew mi rek ci li nga xam ne mooy xew ak xew-xew yeegee ci aju ku nekk gis na ni maanaam fële ca seesu APR ba euh, démb tàngoon na voilà bari woon nañu fa daje woon waaye dafa mel ni nag euh, bokkuñu jëbuwaay voilà wala xaw nañoo réeroo tuuti rek ci ay discussion voilà xaw nañoo réeroo ndax la gis démb ay sièges yu naaw voilà kenn ku ci nekk naa sama mbër sama mbër waa kër Diop fa euh, saar yi gis nga leen fañ taxaw voilà kenn ku nekk voilà Euh, jàppee sa mbër mooy candidat ëllëg voilà euh, kële di Amadou Ba tamit ay gaayam xam nga waaye daal réeroo nañ daal voilà léegi nag APR nag voilà bu fekkee tey ji nii la nar a doxee ak li ngeen dégg seen leader bi wax ko muy Macky Sall kum leen tànnal ngeen kan xam naa ni li ngeen di wane ni dalagud dalagud am xel daal dalagul am xel waaye nag euh, en tout cas lu ci mën a am daal mooy daal sénégalais yi daal ñoom fi mu toll ni dofutun voilà Euh, yaakaar naa ne kuñ leen man di tànn te ñoom ñoo yor seen i carte di wote ah en tout cas daal moom fi mu toll ni moom Sénégal lañ bëgg mu avancé dafa jot sëkk sonn nañ ci mbeex mi sonn nañ ci frontières yi sonn nañ ci désert yi wala lii xale yi daana ko moom la ñuy wax ñoom nee na kuñ leen man di tànnal ñoom ñoo yor seen i carte di wote voilà ñooy dem ci urne yi voilà kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax voilà kon nag yaakaar naa xëccoo bi ak xiiroo bi ak ŋaayoo bi jaru ko de man ngeen a dalle te xam ne Sénégal lañ nekk te ñi ngeen ñi ngeen ñi ngeen jiite dañoo yeewu ba ni jar fi mu toll nii voilà nekkutul ni maanaam suñ carte d'identité yi léegi dañ koy asaloo de loolu nag du suñu wax waxi population bi la ñenn ñi nga xam ne ne da nga leen di fréquenté di dem di def ci ñoom ay reportage ñoom ñoo lay wax loolo nañu dal te xam ne kenn ku nekk ki la neex ngay àndal voilà bu leen neexee nag man ngeen di paccoxoo di voilà di yuuxu di def lépp mais dal leen voilà bi ci des nag moo di Sénégal moom fi mu toll nii dafa jot sëkk rek ñu xool bu baax a baax a baax a baax euh, ki ñuy jox sunu réew wala loolu moom euh, na ngeen ci bàyyi xel bu baax a baax xëccoo bi jëru ko ku man rek bu soob yàlla sénégalais yi ñoom ñooy jugé waaw yaakaar naa ne jëru ko xëccoo bee xiiroo bee ŋaayoo bi jëru ko de sénégalais yi ñooy jugé ñu ngi leen di di leen char